ganok suba si maître Aya Boun Malick Diop moo jiite Sytjust maître ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay. ñu am mbégte dalal ci matinalu tey bi alors Sytjust gannaaw grève bu yàgg bu mu amaloon jël na dogalu dakkandilagum la gum euh, li alxamisu demb gi jàpp àjjuma tey gi altine euh, kon bi ñu dëgmal ba talaata benn fan ci weeru septembre at 2020 euh, lan la leen ministre bi dik ba tax maître ngeen dakkandi la gum waaw li nga xam ne moo ñu gën a xiirtal pour ñu dagg grève bi dafa nekk euh, li ñuy xeex yépp sunu xel mos jóge ci askan bi ndonte sax sunu àq ak sunu yelleef lañ doon laaj di ko jaaral ci yoonu grève bi nga xam ne constitution moo ñu ko may sunu xel mos jóge ci askan bi ndaxte askan bi moo gëna a yëg grève bi mettit yeeg tiis yeeg tawat moo tax ñu ne buñ ñu ubbilee bunt rek nañ ci jaar pour permettre sunu mbokk yooyu ah seen souffrance dagg mais gannaaw loolu weesoo waxtaan gi ñu waxtaan ak ministre de la justice dafa am ay kilifa yu ko teewee woon te ñooñu seen engagement rek doy na caution ku ci mel ne bâtonnier de l'ordre des avocats ku ci mel ne l'ancien ministre de la justice maître du ndoy à organisation syndicale bi ñuy wax ma Mademba Sock jiite ko le haut conseil du dialogue social madame Innocente Ntab Ndiaye jiite ko ak l'association des juristes africain le professeur juriste euh, Ogo jiite ko ñoom ñëpp fekk nañu bi bi ministre de la justice di jël engagement loolu fekk si lañu amoon nag muy ñeewante gu jëmale ko ci askan bi loolu lañu boole tënk ko ne kon war nañu daggal grève bi ay fan dem waxtaan xool la waxtaan nga di jur bu waxtaan ngi dalee suñu xel ñu daal di jaare noonu aj grève bi ba ci kanam. Hmm. est-ce que maître dëgg-dëgg yéen a ngi doon xalaat askan bi ndax bu ñu xoolee seen grève bi ni mu yàggee ak ni ci nit ñi sonnee teewul yéen ngeen jàppoon fi ngeen jàpp rek. waaw xam nga li olof di wax ñàkk pexe pexe la. loolu rek moo fi sosoon xeex rek ndaxte suñu ak ak yelleef yi nga xam ne amoon nañ ko mu nekk ay poñ yoo xam ne duñ ko façon ak gouvernement bi ñu gis ne gouvernement bi da ko bëggoon fecci ci kaw jaay doole te ñu gis ne façon waxtaan gu nekk ak njekk gu nekk wax nañ ko ñu xam ne loolu rek ci desoon maanaam daal dañoo xawoon mel ne ay nit ñuy lab te nit buy lab moom boo xasee ba mooy ci bant dara du tax mu mën koo bàyyi léegi nag ba demee ba gis ne gouvernement bi changé na gis-gis ak doxalin ay kilifa dugal seeni loxo ah wax ñu ne su ñuy ak suñuy yelleef kenn du kenn du koy kenn du kenn du ko foqati ah ñu mën a bàyyi nag ndaxte tamit xam nga grève publique moom du entreprise bee koy yëg grève secteur public usagers yi ñoo koy yëg moo tax rek ba ñu amee ubbi ubbeeku ubbeeku rek mm. bunt rek dañ cee jaar dem waxtaani xool waxtaan gi du jox bu dee nu mu tuddee lu dal xel la rek incha allah ñu gën a euh, bàyyi maanaam jaare noonu mu nekk li ñuy wax suspension. Mhm. li ñu tàmm a gis itam mooy grève bu yàggee nii lu ëpp ñaari weer yéen a ngi banque seeni i yoxo ak li mu jur yëpp ci ngaañte te waxtaan amul seen digganteek ministre bi lan moo waral grève bi yàggee nii ak itam euh, tànqamlu buñ ko mënee tuddee noonu euh, gi ministre gi nekkee woon ak yéen itam dogu gi ngeen amoon ci ci xeex bi. waaw xam nga li guddal xeex bi ñàkk waxtaan a am Wolof Njaay day wax. réeroo amul ñàkk waxtaan a am. waaw lu waral ñàkk waxtaan boobu. waa li am mooy xam nga ñun bañu ñu déposé suñu préavis de grève duñu doon toog di xaar ku ñu woo ndaxte ñun sunu aada gré euh, ada syndicat au Sénégal mooy boo déposé sa préavis de grève na mu gën a gaawee sa njaatige da lay wo xool lan moo la naqari mu xool lan la ci mën a faj ak lu ci mënut a nekk ngeen waxtaanee ko ba tombé d'accord ngeen bàyyi grève waaye bii ba ñu déposé. kenn woowuñu te bañ demee ba ci yàgg duñ ne balaa ñoo toog il faut ñu bindal demande d'audience ah ñun na ñu jàppee na en tant que syndicat boo xam ne du ñoo respecté il hmm. faut ñu wooñu sans ñuy demande d'audience ci kaw loolu euh, gouvernement bi taxawee neen ñun ñu taxawee neen mbir ma yàgg lool. kon loolu rek moo taxoon waxtaan amul ba solution mën a génn. mais loolu dong la ndaxte dem nañu ba ñu ne ñii duñ leen recevoir mu ko tànk arrêté wuñu grève ñun leen déet ñun suñu grève suñu droit la hmm. ndax boo demee ci yeneen euh, secteur nit ñi duñuy grève di waxtaan ak seeni kilifa kon boog ñun pourquoi ñun waa justice ñu war a nekk exception yi grève nañu nañ ñu woo ñu waxtaan bu ñu waxtaanee rek bu ko defee xëy nañ am solution mais nga xool boo xoolee mbir moomu nag comme c'est une première sur euh, plus de deux mois hmm. ñaari yoon rek lañ ci daje waxtaan benn bi mooy le vingt juillet fekk ne grève bi am na un mois cinq jours beneen bi mooy barki démb ba ñu dajee euh, di waxtaan donc en mois en soixante dix jours deux fois la ñu dajee alors que buñ ci doon gën a daje daje yi bu doon gën a bëri rek waxtaan gi day gën a am ubbeeku di gën a am mer gi di gën a wàññeeku euh, xel yi di gën a leer ba ñu euh, bañ a grève gën a gudd donc lii indi guddaayu grève yi ñàkk waxtaan la. d'accord moo tax may wax. Mm. ñaanu ma ko yàlla bu ñagas ñagas amatee rek. na kilifa yi gaaw di woote ndaxte loolu mooy buntu solution. d'accord mais amul dara lu nekk yow personnellement sa diggante ak ministre de la justice parce que njortoon nañu ko bi ñu demee benn instance sax ñu ngi wax ni yow boo maygul danañ la dàq ci ci ci administration maanaam radier la carrément euh, est-ce que amul leneen lu la aussi ci ci diggante bi. déedéet sama diggante ak Malick Sall amul benn moom dafa fekk ne dafay incarner benn institution man may incarner benn syndicat ma am ay intérêts yu may défendre moom it ma am position yu may défendre hmm. donc comme euh, il était ferme dans les positions ñu on dans notre engagement loolu mooy indi affaire bi ñu ne ñaari kuy mbëkkante la mais saa bu ñu dajee ñaari daje ñu def yëpp waxtaan ci biir waxtaan gi day am kaf ak reetaan eh, xam nga engagement moo mel noonu tey bu ma nekkatul secrétaire général du SYTJUST kenn dootuma tudd moom it bu nekkatul ministre de la justice nekk beneen ministre dootuñu tudd parce que amoon ay ministre ki ne woon ñu ngi ci yenn poste kenn déggatu leen ci au niveau de la justice loolu mm-hmm. dong la mais ce n'est pas des pertes des de des des des dire encore ay considération crypto personnel loolu mënut a nekk sax parce que benn moo ma mag sama kilifa la man na ma papa ñaareel bokkuñu génération kon animosité mënul am suñu diggante ndaxte boo gisee animosité di am en ay nit ñoo xam ne dañoo yàgg bokk langue. Hmm. maître Malick Sall bañ dajee yàggul ça tout juste un an ba ñu amee crise deux mois la donc animosité mënul am suñu diggante. d'accord léegi ñu daal di jàll ci beneen ponk mooy euh, li ngeen di xeex euh, dañuy dégg ngeen di wax statut euh, des travailleurs de la justice ak itam lu aju ci fonds commun yi nga xam ni état moo ko supprimé woon démb am na ndaje moo xam ni waroon na am ci alxamis yi ci ngoon lan la ñu mun a jàpp ginnaaw ndaje moomu ak itam nga dikkal ñu ci li ngeen di xeex dëgg-dëgg lan la pour mu leer ci bopp askan wi. waaw waxtaan nañ ci mais xam nga ndaje moom boo xasee ba dem boo génnee li ngay njëkk def mooy li ñuy li tubaab di wax primeur maanaam ka ngay njëkk wax mooy ña la yebaloon comme nag dem nañu ah la primeur euh, joxaguñ ko suñu base parce que démb dañu la ñu génn amuñu temps pour def compte rendu yi mm-hmm. euh, li euh, du ñuy bàyyi ba ñu wax ak base après ñu doog ci wax lañ fa jële mais li wóor ba wóor mm-hmm. mooy waxtaan bu dal xel la yaakaar juddaat na am nañu suñu xel dal na donc daal ñu ngi toog di xaar euh, yeneen développement ci prochaine rencontre yi. kañ ngeen war a dajewaat ak ministre bi. war nañu daje semaine prochaine incha allah. d'accord léegi nga ñëwal ñu ci li ngeen di xeex dëgg lan la. ba ñu ko mën waaw ñun li ñuy xeex ñett dong la. Mhm. benn bi suñu affaire statut la ndaxte nit booy liggéey. Mhm. da war a am boo xam ne da lay ngay évoluer. ndaxte ci kaw statut boobu ngay amee weg gi nga xam ne donc duñ la ko war a wegee hmm. ca fa ngay liggéeyee beneen bi mooy la nga xam ne mooy euh, li tax nit di am la muy sàmmee ngorom mooy maanaam ay am amam muy ñun si ñun muy mbiru fonds commun ak mbiru salaire yi beneen bi nag mooy mbiru suuf yoo xam ne dañ koy yàgg laaj état bi pour mu jox ñu ko ñu boole sunu ñu jox ko sunu coopérative pour mën a am foo xam ne nañ ko mën a tabax parce que nit boo gis buy liggéey kër a kër a ko tax a hmm. donc ñett yooyu daal ci la ñu nekkoon doon ci liggéey am ci ay avancé ba am ci woon yaakaar ba lii crise bi ñëw hmm. donc euh, ñu ngi yaakaar ne bu ñu waxtaanee sunu objectif yooyu objectif bu syndicat bi dinañ ko jot muy maanaam améliorer condition travailleur de la justice hmm. alors euh, maître fi ñuy jeexalee mooy euh, seen digg ak UNTJ euh, du Union nationale des travailleurs de la justice ñooñu ñooy ñi faqee woon ci Sytjust ginnaaw coow yu amoon ci seen syndicat bi jamono yële ñu weesu ñu ber seen daara waaye ci biir seen grève bi ñoom yëkkati nañ fi ay kàddu fii sax ci plateau mi FM matinale bi wax ne bokk nañu wala soobu nañu ci xeex bi nga xam ne Sytjust mi ngi koy xeex maanaam ñu ngi défendre cause bi ngeen di défendre yéen est-ce que waxtaan jotoon na am seen diggante ak itam ndax yow Sud Juste ak li fi xew yëpp pare nga pour lëngoowaat ak waa UNTJ. waaw man xam nga li may wax rek mooy li leer ci xeex bi mooy euh, sunu secteur dafa nekk secteur bu particulier leer ba leer mooy la am ci yeneen euh, secteur yi mënu fee am. mooy ñaari syndicat ñetti syndicat mënu fee am duñ ko defee duñ dem fenn duñuy perte. mais grève aussi wane na euh, nu mu tudd que le SYTJUST est le syndicat le plus représentatif et qui n'a ben perte perte dooleem ndonte hmm. am na ñu fàq ci ñun dem déedéet tey yàlla war na ne dafa mel ne sax tey la ñu gën a bëri doole ah beneen bi nag mooy euh, ñun bu doon suñu sago syndicat bi du tas ah du am ay nit ñuy fàq di dem seen yoon mais li olof Njaay di wax rek ku ber sa daal rek xam ne sa sëriñ jàmbaar la woon ñu ngi leen di ñaanal ñu dem ba ci kanam ba gis ne mbooloo mooy doole dellu ci ndax ndaxte man euh, travail de la gis yëpp mbooloo la ñu bëgg te lu nit gàtt gàtt xel xam na ne lu benn lu benn mën ah mbooloo ko dàq mm-hmm. waaw donc loolu loolu loolu loolu daal laay wax waaw ñu ngi leen di ñaanal tamit bon vent mm-hmm. mais tamit wax ne les portes de sont largement ouvertes saa bu ñu bëggee dellu ñu toog waxtaan léegi nag li ñu am mooy yow ci biir euh, grève bi effectivement euh, ñoom daje nañoon ñun wax ñu quelles conditions la bëgg ànd ak ñun ba ñu xoolee ne conditions yooyu agréé wu ñu ah ñu bàyyi leen ñu dem seen yoon ñu continuer suñu xeex xeex bi mm-hmm. loolu daal am na fi mais nag ñun daal li ñuy wax mooy tëjuñu bunt bi ah ku ñu ñëw dellu si ñu dellu si kër gi daal moo ñu jërëjëf maître Aya Boun Malick Diop amoon nañu mbégte lool dalal ci matinalu tey bi fàttali ni yow yaay secrétaire général bu Sytjust ñu ngi lay gërëm